Saints. te di ko jëfe ci sunu diggante asalaamualeykum mbokki auditeur yu banlieue fm mbokki téléspectateur yu banlieue tv ak sunuy internet yu nuy suivre sur facebook ak youtube avec Golbert Média maa ngi nuy également sunuy technicien ak sunuy caméraman te di am mbégte lool tey toogaat ci plateau bi pour suñu sixième édition Ndar Démb naan ñépp nag dëwënati leen ci at mu bees mi 2022 yal na ko yàlla def atum jàmm atum wér ak wérle atum xéewal saawaan mu baawaan ci biir kër yi ci biir dëkk bi ci biir réew mi ak ci biir àddina si yépp yal na nu ko yàlla defal defal ko mbooloo mi jullit monsieur Loum na nga def. ah soxna Marème sant yàlla bu wér sant yàlla bu wér alhamdulilah ah xanaa ah, ah, comme ni ñu koy defaree comme ni ko tradition bëggee ah vraiment du nuy sunu mbokk auditeurs yëpp sunu mbokk internautes yi e sunu mbokk téléspectateurs yi ñu ñuy suivre vraiment fi ñu daan suivre à chaque fois sur euh, euh, Ndar sur Banlieue FM seen émission Ndar démb. ndar démb nag bu ñu ko waxee rek moom moom daanaka euh, euh, set na wax ndar démb vraiment c'est le patrimoine saint-louisien ndar démb émission bu taxaw vraiment pour jéem a euh, perpétrer la culture saint-louisienne la ñuy taxawee ah may door rek comme ni nga ko dooree vraiment di souhaiter sunu sunu mbokk auditeurs yi sunu note ak sunu mbokk internautes yi di leen souhaiter une bonne et heureuse année ah di leen ñaanal yàlla di si njëkkal sunu bopp. n'est-ce pas di ñaan yàlla buñ déwal namee ñaaw yàlla na dàq ren ndox mu yàlla na ko dàq ndaxte ren vraiment li fi xew lépp mbas mi xaw na wàññiku tuuti par moment waaye daal wax dëgg yàlla daal fit yi xaw na nu yëngu tuuti kon daal yàlla doon loo xam ni ah daanaka ren jii lu ñuy fàttaliku ko rek lay doon daal yàlla wàccee xéewal gi seen njaboot gi yàlla wàccee xéewal gi seen ndar gi senegal gi yëpp yàlla musul nu ah, te vraiment aaral ñu boppam quoi kon vraiment daal ah xanaa loolu rek laay duggeen en attendant vraiment ñu xool kii bi di gërëm nag bu baax suñu mbokku internet yi te naan leen gis nañu seen réaction bu baax baax gis nañu commentaire yi itamit fi ñu ko téye foofu la nañu doon dolli rek te di gën a partagé tey abonné wu pour ñu abonné wu bon tey nag noo ngi leen indil thème comme thème ceebu jën ndax euh, ku ne ndar rek sa xel dem ci teraanga ndar ku ni ndar sa xel dem si ceebu jën ndax ceebu jën lañu ñu bàkkee waa ndar ceebu jën pend mbay moom la ñu bàkkee waa euh, ceebu jën nag euh, macha allah mën nañ ci wax lu bëree bëri. te fekk sax du ci toggin wi. ndax euh, tey dañoo bëgg xam lan moo waral ñu bàkkee waa ndar ceebu jën. waa kay loolu Marème ndar dafa doon loo xam ni jëggaaniwul daraam daal léppam moom la. bul ne ceebu jën lan ak lan la composition bi ceeb la ak jën ndar am géej am dex am jëni géej am jëni dex ndar am suuf soo xam ni senegal gépp à part Casamance moo fi nangoo mbayum ceeb si loolu ndar donc am lu ñuy wax laa vallée mu koy tudda ceebu waalo di bay wow te ceeb boo xam ni daanaka pratiquement euh, ëpp na waa ndar kese ndar am gànjulam gii nga xam ne maraîchage bu ñu ko day wax tey n'est-ce pas dans le gànjul dans l'histoire maraîchage bu ñu ko daan wax tey n'est-ce pas fi la ëppee si si Saint-Louis la kon kay daanaka bay dunde bay dunde ndar waxoon ni ay yàpp ak nangam sax sax mais lu nu wax ni da ngay ñëw dugg en euh, euh, euh, pêche bi type de pêche yëpp mi ngi ndar type de pêche yëpp mi ngi ndar da ngay jënd ay jëndu géej safa la jëndu dex wala nga togg sa ceeb bu yeexul róom wala nangam yaa xam loo si neex njab am na yoo xam yu si bari yoo xam ne plat yi nga xam ne c'est spécial à ndar rek a mool boppam kon bul ne jën ndar di bay ceeb ndar am géej ndar am dex kon bul ne ceebu jën ndar ah kon dafa naa ni vraiment yàqu ñu way wi daal kon boog loolu mooy ëmm ak lu tax naan ceebu jën ñu koy bàkka ndar loolu rek la parce que ndar daanaka moom rek moo am loolu n'est-ce pas maraîchage banque di gànjoog lay jóge koy bay lépp ba tey jii soble grand soble gànjool doo ko dégg sa marché tawatu na soble gànjool du soble kese maraîchage bi lépp la ñuy bay carotte gaaga fi lépp dañ koy bay depuis nag si maam yi alors dan ko daan bay gànjool muy ñëw nga dugg si dex gi da ngay xëy garab mool bolam laa moom nu ko nu ko nu ko tudd mool loo laa gaa gaal loo ci dañuy dugg léegi si fajar gi huit heures ñu ñëw wàcc indi la ay room ponkali waas yuy tëb gaal di dem géej ñëw wàcc si de ce da nga daan toog euh, nu koy tuddee euh, waa Guet Ndar lu tax seen ceeb daan mel noonu daan daan togg ba pare ruus ba pare di xaar jënd ñëw jënd buy ñëw ñu koy loolu extra yooyu boo ko toggee leen la moo tax pratiquement bu ne ceeb bu jël ndar wala yàquwul daal Marème. Euh, dëgg la ceebu jën moom ndar la cosaanoo. Mhm. man nag dama ciy xuus bu baax dem ci lu tax ñu ne ndar la cosaanoo. ndax bu jën fi yàgg ceebu jën ku nekk xam na ni Ndar euh, c'est la première capitale de l'Afrique de l'Ouest mmh. mooy capitale mooy première capitale senegal Sénégal colon yi fii lañ ne woon mmh. te bu yàgg ba ceeb amu fi woon mmh. yàlla def colon yi bi ñu fi nekkee ñu indi nag ceeb jële ko Indonésie bi ñu indee ceeb jële ko Indonésie ñu indil ko waa Ndar indil ko nag ñi xam nu ñu koy defee. Mhm. ñuy waa Ndar di ci gëstu. ci gëstu ba xam nan lañ ko mën a booleel. Mhm. ñu xool ni Ndar am na géej. Mhm. te ca jamono yooyu am na jën yu baax ñu ni kon nag te ñu ko composé ndoo ak jën yi def ko ceebu jën. noonu la ceeb bi duggee Saint-Louis. Ah. ñu composé ko nag ak ceebu jën. commencé di ko togg def ko di di di ko togg di kii rek ba ceeb bi réussir ceeb bi dem ba nga xamante ni daal tur bi daal di taxaw ceebu jën penda mbay penda mbay boobu nag daan ci dikk waaye comme wax na nu cosaan ceeb bi waaw macha allah ak ni ñu ko fi daan yoree ci biir euh, réew mi uh-huh. ci biir euh, ndar gi di ko fi toggee ba mu am woy woowu tur woowu dem ba wër àddina bi tey muy ceebu jën penda mbay mm-hmm. te ñu xam ne cosaanum Saint-Louis la aussi. noonu la fi yaa ngi fàllu ceeb ceeb njëkk yooyu ceeb bi nu mu daal tudd yan ceeb nga si jafandikoo. yaa ngi fàllu ceebu Seyam. ceeb Seyam <laughs> yaa ngi fàllu ceebu ceeb Seyam <laughs> <laughs> Pakistan dafa am saako yi nga xam ni ah, c'était un peu du du kii xamul nu ñu koy defal daan saako bi daanaka moom à la fin sax mën nga mën leen daan fobeeree ay dërëg ay affaire yooyu daal saako bi néewul saagu kawus extra matière mais genre comme lu karab moo daan saagu see am. ko daan jël saagu 100 kilos daan doon ñu bëre am na si ñoo xam tey moom la daan ràbbe moom la daan ràbbe pajaas boobu mat naa amagul. Mm. la gars yi jël di ko ràbb bu ñëwee ceeb bu mu naan mm. bii mooy ci ceebu bu ñu importé moom nga xam moom la ceebu siyaam ak ceebu pakistan waaw amul woon Sénégal. Ah, amoon na mais dafa bëriwul woon amoon na bëriwul woon parce que euh, dama remonté ci suñu ay recherche fu gën a uh-huh. sori donc amu woon ba mu commencé am bariwul woon itamit mhm. euh, mu commencé dikk ndànk-ndànk mhm. bi ñu ko indee nag ba commencé nag di ko euh, bay ci réew mi parce que réew mi moom tubaarkàlla réewu mbay la mhm. xëy na léegi la xale yi teggi seen loxo rek mais maam ñi moom mbay lañu xamoon bay dunde ñu commencé bay ceeb bi ci vallée bi ba la tey fi tey jéggaani leen lenn si ceeb mm-hmm, mm-hmm. ku bëgg jéggaani tey xëy na yaa nam ma beneen ceeb mm-hmm. mais am nañu suñu ceebu bopp tey ceebu ndara ngi fi ceebu waalo baa ngi fi lépp fii lañ ko bayee macha allah mais booba maam yi bi ñu dañoo amoon culture ceeb boobu dañ ko daan togg si ay ndaje ndaje bu mësaan am ñu koy ñu ciy togg ceeb bi bu ñu toggee ceeb bi nag séddale bi tubaarkàlla macha allah ñu gis ni daal ceebu jën bi mu ngi réussir lool ceebu Penda Mbaye. kuy Penda Mbaye. daan dëkk ci Penda Mbaye. <laughs> waaw moom. ba xam mu ca fu lu mu ko indi si ceeb bi. ak lu ko takkaleeg ceeb bi. parce que te booba la ndar. dandaan teel a togg. teel togg bu otoraay bi daan. corne fii ci pont lebar bi. voilà saxaaru 11h. saxaaru 11h. <laughs> dina fekk ñu suur. wallaay bay jeqi midi pile. Mhm. bool keng. midi keng bool keng. waaw midi pile bool keng. loolu ko indi woon ndax ndar añu midi la xamoon. Mhm. ndar añu midi la xamoon bu midi masaana jot bu ñu déggee corne train ba rek ku sóorul woon yaa ngay waaj sóor. waaw ak Salim waaw boo sóoree nag jeqi sa deuxième jeqi tombeek midi jot. nga yekk sa añ. Mm-hmm. nu yekkee seen añ nag tubaarkàlla mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. xale yu jigéen yi sañse ba jekk. ndax teraanga dafa yàgg ndar. boo toggaan ba yekk dangay ngay tibbal sa dëkkaale. ak boolu gan. bool waaw da ngay tibb jox sa dëkkaale. ñi jële jóge sanc ba yóbbu añ looda ñiy jóge looda dem Sindonde ñiy jóge Sindonde dem Gendar tubaarkàlla sañse ba mu jekk nag. di yóbbu añ yi. boo yekkee nag moom boolu gan boobu nag moom. njoganal bii ñuy wax tey. foofu la soqi ko. dëgg la ci boolu gan. ndax boo yekkee ba noppi da ngay tibb sa benn bool rek teg. wallaay bu gan ñëwee tombe ci. bu gan ñëwulee it muy njoganalu waa kër gi. wallaay te madame sax su lool balaa nga fee romb. lu taxoon ñu daan teel a añ ndar. ndaxte jamono yooyu c'était durant la coopération jamono yooyu tubaab yi daanaka ñoo ngi ko lépp. booy xoolee ay jamono jusque vers les années ay ba avant année quatre-vingt yi. Mm-hmm. boo daan dem lycée presque ñi fa ëpp professeur bu dul histoire géographie du anglais yooyu. Mm-hmm. ay tubaab rek ñoo lay jàngal. Ah, ñun noir ñi dañ leen benn benn. Mm-hmm. c'était la coopération boo demee hôpital bi aussi tubaab bi ñoo fees dell monsieur ay ëpp ay ay ay tubaab la doon. xam nga mu ngoog donc tubaab yi dafa dem ba dafa la ba vers les années soixante-dix avec la coopération bi li ñu daan la coopération kooku après la jeex moo sa gars yi mu di delluwaat mais da daan fekk ba école boo daan xëy 8 heures midi da ngay wàcc gontaat 3 heures diggante midi ak 3 heures boobu daa fa jàng alxuraan daa fa nangam sax dañ daan teg ba temps bi moo la daan tënk ba da ngay da ngay da lënku si temps bi. boole seeg saxaaru 11h bu tardé ba tardé 11h dem la naan pe bu ne pii pon ñu ne 11h jot na ku ko amul montar saxaar ngay déglu soo déglu loolu salaa bi ku am rajo dëkk déglu Salimto ba ngay déglu moo tax naan kii comme laan fekk fu nekk si mbedd boo daan dox sax soo déggee Salimto xoolal gën gën nga yokk say tànk kon dafa nekk ay connecteurs yi nga xam ni société bi ndar alors ñoo ko daan la ba nga xam ni nit ñi dañu lënk woon si benn système de vie bi nga xam ni pratiquement melul comme tey nga xam ne na neex daal foofu partout foo mën a dem am na nu mu daan dem kër goo dugg n'est-ce pas différence bi du du mat mukk 30 minutes kër yëpp ay àndandoo kër yëpp bu ñu déggee xoos kàddu benn yoon moom lañ daal eh déggal benn xoos nga njëkkante balaa pare nga xoos bu ko defee ñu ne eh xoos na kii di xoos na kii xoos na xiis noonu yàkkalante bi ni nga ko daan waxee xam nga ay fii dex la en général gars yi dañ daal ñëw taxaw fii xam nga boobu temps yi macha allah géej dax gi yàquwul na tey borom gaal yi da nga fii rek jàpp ay ponk yu jàpp ay waas jàpp ay naam en général ñoom li seen ceeb di gën a doon dañuy togg seen ceeb waas bu ñu toggee ceeb waas nag mën naa ni sama ceeb waas dafa gis lu nekk da daal yekkal ñi nga xam ne waa Gendal waa Loor Jalla Pom mm-hmm. nga xam ne nga si géej gi ceeb bu jën bu ko def mën leen ceeb bu jën jax tey man tey vraiment tey ceeb jënd jax laa nga dama kaa nan xaal boolu marème mm-hmm. su marème indee bu ko defee buy dem yóbbaale boolu ceebu géej jënu géej donc échange la woon boo xam ni si waa Ndar si ceeb boobu dañ si daan exprimer en quelque sorte quoi à la moom day dem ba xool jëndu ah moom la jën bii de noo koy toggee dem mu ne ah jëndi boo ko dee togg dafa lii dafa lii dafa ës yi da nga koy tëj lii nangam sàng si échange boobu échange te bool yooyu si lépp di ñëw ba ñu am en quelque échange ñu am wecconte xam nga recette boobu ba plateau ma day boobu da ba dafay nekk loo xam ne dafay daal di law partout daal. dëgg la dafa daal di law ndax euh, Saint-Louis. Uh-huh. dañoo mës a am esprit de partage et de solidarité. Uh-huh. loolu depuis suñuy maam la de génération en génération dañu koy doxal di ko doxal ba léegi macha allah. Uh-huh, ceebu jën boobu nag dafa dem ba noonu ñu koy boo boo daan yàq ba noppi nag la ceebu jën tu sais que ça se mange famille. amul mm-hmm. ay comme ni xale yi xewal léegi yekk benn mm-hmm. palaat fii yekk benn palaat fële mm-hmm. ci bool bu mag lañ koy taaj ñëpp sukkoondoo booli booli <laughs> booli <laughs> togg ci mën a yekk ci booli ñëpp sukkoondoo macha allah ku nekk dugal sa loxo waa ñu ñu ñu ñu ceeb bi nag daal de xam ne nag ceeb bi nag dañ ci ràññee woon nag benn ñu ngi doon wax léegi Penda Mbaye Penda Mbaye benn restauratrice la woon benn géwal la woon. benn géwal la woon moom ci comme ni ma ko waxee restauratrice la da daan hmm. togg ceeb. ceeb bi hmm. ñëwee noonu ba gars yi di ko togg moom da daan togg. Hmm. mais bu ay cérémonie daan am bu toggee ñépp dañuy togg di xaar naan yàqu penda mbay bii la ñuy wax lan laay ci lay añ. tellement que moom ceebam ba dafa neexoon ndax na mu ko daan toggee. te tu sais ceebu jën du n'importe comment lañu koy toggee. du n'importe aussi quel jën lañ koy toggee. Mm-hmm. ndax boobu tubaar fa kàll géej gi richoon na. Mm-hmm. jën yu ngandee amoon. mool yi bu ñu daan dem ba ñëw dañuy jël gën jën yu gën a mag yu gën a rëy tubaar fa kàll mm-hmm. moom lañ daan rëndoo si ceeb yi. bi capitaine bi comme kay si géej gi yëpp kibaaru. capitaine coof sëdd sëq bi beurre moom lañ daan rëndee. ndax ceeb nag rënd da ci baax. waaw moom moo taxoon nag mu am spécificité boobu. Mhm. Euh, toggee ceebam nag ba pare nag ku nekk rek ni du añ lu dul ci mbanawu Penda Mbay. Mhm. Penda Mbay boobu nag du lenn lu dul benn daam restauratrice. Mhm. la woon daan togg ci cérémonie yeeg lépp. Ah. mais moo ci gënoon saf loxo maanaam moo ci gënoon daal mën ceeb. non est-ce que moom la kam nekkoon sax ñu dëkk ñu euh, takkan dakkantalee ka ah. ceeb bi. bu ñu yekkee rek ku nekk naan ceebu Penda Mbay bi laay. non moom rek moo fu nekkoon sax. moom rek xam nga bu daan moom rek moo fi newoon. ndaxte Penda mbay comme ni ko waxee magum géwal la woon. Mm-hmm. te xam nga tradition euh, ndar bokk na si ñoom ku nekk la nga jagleel yegg yàlla ji la nga yelloo dana la koy jox. Mm-hmm. bu togg amee da ngay xool magu géwal yi ñoo koy ñëw. Mm-hmm. ñoo am ñoo ko des spécialistes en mbana. ay spécialistes mbana Penda mbay ca la bokkoon. te jamono yooyu xam nga presque. xew daawul dem ko nu mu dematee ko foo tourné xew yaa ngi bari extra bu gisee xew teeb laa ngi xew gisaa extra dafa doon woon loo xam ne vraiment ça courait les léegi nag ku am sa xew mu mag il faut nga am koo xam spécialiste mbana te ko kenn kes la woon mu doon penn mbay. mu doon penn mbay moom bu daal ñëw pratiquement moom fu mu ne day dem langue de Barbarie île ba Sor partout da daal dem di def prestation c'est comme tey rek les communicants du du bu bu nee restaurant day xam ay restaurant comme tey dañ ko moderniser mais avant yooyu amagul woon amul ay restaurant yi jamono yooyu amagul woon mais parce que ay ndaje amoon ay ndaje mooy na xew ngéntee takk et cetera wala la ñu taamu ca nag ne rek moom rek lañ ko jagleel voilà la leen doon mooy penn mbay moom rek moo ko daan loolu te mu siti spécial voilà boobu da nga naan jën yu sew wala jën yu ñàkk solo yi sax dañ ko daan libéré waat ci géej gi. wallaay non danga naan booba booba congélateur amul. booba frigo amul. <laughs> waaw loolu dëgg la moom. donc conservation jën kon jën xoolal da nga koy jënd dënt bu tooy bu amee ñett fan day yàqu da nga koy sànni. kon jën bi dañuy gaal dañuy taxaw nga ñëw yore sa assiette dem taxaw booru géej. booru géej. xoolal boo demee jënd sa jën yi bees tàq ngay ñëw waas ko togg ko ceeb kooku loo ko togg mu saf. xam nga boo ñëwee ay jën bu ñu togg kese bu jën bu ñu daan toog géej gi ay ba benn gaal yéegul gars yi soog a dellu cosaan toog ay ceebu keccax di tëb ay géej ceebu géej yes di tëb ay nangam sax parce que Sine bu nga fàttaliku aussi mi ngi fi jamono yooyu Sine boobu ba léegi mi ngi fi parce moo daan yëpp yi nga xam pratiquement moog si ay ay benn fan après gaal tëmbaat su ñëwaatee frigo amul congélateur amul jën yu baax amoon walaay kenn daaw sor walaay loolu moo doxoon ba pratiquement ceebu jën vraiment ndar la nga koy lekk daal ceebu mat sa baaraam comme ni ñu koy waxee. ay ceebu mat sa baaraam te taa yooyu kudd amul lekk kudd kenn xalaatu ko. <laughs> pour Adja Ndella Pène ñu koy nuyu au passage. di nuyu aussi sama doom ju baax. Ramatoulaye mm. Fall depuis Canada mu ngi nuyu bu baax ak Oumou Diagne Guissé di leen kuku à soxna Mariama jaar Diagne ñu ngi leen di nuyu di leen bëgg di leen souhaiter bonne et heureuse année. Euh, ceebu jën nag lu taxoon ñu taamu woon ci midi keng bool keng parce oh. tey dama gis ni ñu bëri ay 3 heures 4 heures la ñuy añ. amuñu heure kay la heure amuñu heure léegi heure bu ne ñu ngi ciy yàq. wallaay ndekki 11 heures ba mag ñi midi pile ñëpp yàkkandoo. ñëpp a yàkkandoo. wallaay añ yëpp ay parendoo mais tey lan moo waral nit ñi di toog ba yenn heure yi ñuy añ. mooy loolu système bi la rek comme comme on dit parce que avant boo daan xëy liggéey da nga daan xëy gont liggéey foo mën a bu dee élèves yi da ngay xëy 8 heures wàcc midi trois heures nga gontu wàcc 5 heures wala 5 heures dem 6 heures partout même lycée aussi da nga daan xëy 8 heures midi 3 heures 7 heures. administration même chose da ngay dem 8 heures midi nga wàcc. gontaat 3 heures 5 heures nga wàccaat. à la donc entre midi beeg trois heures boobu si ngay def lépp daa si añ daa si xëppoo ndox daa si reposé wu naan si attaaya naan sur le set ba nga xam ni pratiquement bu amee écart quinze minutes rek dafay perturbé te jamono yi comme tey. Mm. boo daan liggéey huit heures pile sa poste lay fekk. Mm. loolu la nag ma ngi bàyyeel la ponctualité. la ponctualité ñun duñu ko bàyyil mais tey xëy na poussab suñu loxo la réere xam nga donc ñoom buñ daan wax midi keng bool keng bu nu ko daan la ku si nekk rek boo demee midi école yëpp wàcce na boo génnee xool mar day taal midi demee fu mu ne gënoon sax parce que am temps bi nga xam ne chrono boo gisul fu mu ne ba neuf bi commencé nga waaj jóg nga génn di ko wëri parce que xale bi temps bi def école sax bu dépassé cinq mille rek commencé nga jaaxle parce que nag amul taxawal amul jàdd amul dara lu lépp si yaru ndar la woon xale bu xëyee ba wàcc amul fenn fu muy jàdd donc le temps bi muy def danga nga koy xam ba nga xam ni bu ba dépassé cinq minutes rek sa fit commencé kon day dem ba nga xam ni harmonie boobu yëpp day ñëw taxaw ba dafa am loo xam ne moo ñuy conditionné mooy conditionné le social mooy conditionné la vie sociale mooy que ni midi fu mu jotee ñun la loo si yokk leneen lu mu nekk 15 minutes la dese pour nga teg bool añ bi après teg raxas xaalis na raxas bool yi nga teg attaa ji ñaar daal lay doon nan nelaw 15 minutes war a mën a gont préparer gont gi. donc day doon loo xam ne parce que noonu la mag yi daan sëy loolu mën naa si lënku moom lañ daan jeegu ndar yi noonu la daan mën naa lënku si loolu loolu lañ daan taxawee ba sa góor dina wàcc ñëw wàcc reposé wu añ naan attaaya naan lu set gontaan loolu bu daan am presque bu am benn perturbation rek pratiquement day daan yëngal kër moo tax gars dana ko daan jël am heure bu ñu daan dem jaba am heure buy wóobatu ko jaba heure booy taal cas cas bi boo ko defee foo toll dégg caas caas caas caas gi mel ni tulleeg maale da ngay romb kër gi naan kii suppakaan lay toog di nga xeeñtu ah donc yooyu yëpp dafa doon yoo xam tey actuellement dafa commencer de disparaître hmm. lu tax muy dem parce que presque comme on dit euh, euh, euh, jamono yooyu nguur gi nga ko lépp libéraliser gunu woon yu bare lépp nguur gi moo ko téye woon école bi nguur gi ko téye woon lépp fonction yëpp nguur gi ko téye woon. alors dem na ba jamono dem ba nguur gi yelax lu bari bu doon fukk ma yelax juróom-ñaar ni baal ma day ñetti gaa yi jëlal secteur privé commencé jot secteur privé mooy na ma ko xalaat na ma ko mën a na ma ko defee na ma ko sentir laa koy defee. Hmm. à la day daal dem ba gars yi ñëw commencé indi ay ne continue ngay wàcc une heure ñii di wàcc deux heures ñii di nangam sa day dem ba dafa am perturbation bi nga xam ne dañuy bëgg comme jël comme njëkkee tubaab tubaab ndékk la xam añ day lekk benn sandwich ndékkee reer la xam. ñun pratiquement peut-être añ la ñu gën a fonk ñu dëkk ak añ ak reer et consort mais bu dee ñoom dañuy liggéey ba quatre heures soo wàccee su ba pare teew ay six heures sept la ñuy teg reer reer bu dëgër toog seetaan neuf heures dix heures tëdd nañu donc seen culture la alors ñun nag dafa mel dañu commencé di roy loolu ba bàyyi la moom daal. bàyyi la ñu moom journée continue bi moom changé na ci lu bëri bëri. moo moo yàq lépp ndax booba dañ daan teel a jóg sept heures demi dina fekk ñëpp dem. amoo droit tardé. muy fonctionnaire bi muy élèves yi huit fekk na la en classe fonctionnaire yi huit fekk na leen bureau yow miy jéeg bi des ca kër ga te war a togg itamit di nga fexe ba midi pile nga yekk ndax bu nu ñëwee ñu mën a añ mën a dallu tuuti comme ni nga ko waxee doog a mën a gont mais loolu li ci bëri def si dañ tey mais xam naa ne système bi xëy na lu si joué la lu bëri la mm-hmm. système bi moom joué na ci lu bëri tout à fait mais seen yu moom vraiment ñoom euh, respecté woon nañu loolu bu baax a baax respecté woon nañu ko bu baax a baax teel a togg teel a yekk te te ma ne boo ko seetloo. si joxante teraanga bi tubaar fa kàlla. bool yi di dem ak dikk xale yi sañ sa ba jekk di yóbbu añ yi. <laughs> quartier de quartier en quartier. wallaay ah, macha allah. mais léegi daal xam naa ne loolu la rek bi journée continue bi. ñëwee ba léegi lu bëre changé na. dëgg la léegi da ngay gis ku toog ba 2 heures fekk sóoragul sax. non ndékki leen ndékki li. autant suñ bu njëkk ba. dañuy toog di ndékki léegi ba midi. midi da ngay génn gis nit di jënd. ndékki xoolal 8 heures kër goo dem doo lal na nañu ndékkee pare naan fa wax ndékki waxatuñ ko 9h moom booy ñëwee lay wax ah xanaa da ngay xaar añ lan lay wax. parce que njëkk 9h c'était kenn mënu ko concevoir kenn mënu ko jàpp. parce que dañuy yow fajal lañ daan yow te gaz amul woon de da ngay yow fajal ak seddu ndar yooyee yaa ngi fàttaliku sedd grise yooyu amatul day sedd nga génn boyal sa xoolal boyal sa furno boo daan am ànd suul si xal soo yeewoo da ngay wàq xal bu ndaw ñëw tekk après yóbbu sa mbedd ma ngay dem xooli tekk fa jox ko ngelaw li mu boyal nga togg sa sexaw teg sa ndox def nangam sam def lépp ndikki day doon foo xam ne bu paree jënd mburu mi da ngay daw sa bit temps amul fuur amul da nga dem bitu ba dem jënd mburu soo ñëwee toog pare solu avant système kenn wax kenn dara ku ne xam nga la ngay def te xoolal bu temps bu jotee daa si pare soo parul yaay yuuxu la loolu la suba léegi daal la xamoo li nga war a def lii lii day dem ba dañ lay teel dañ koy bàyyi fajar bu yeewoo benn yoon ñaar yoon ñett nan la ko wax nan lay bàyyi ana mu xanaa yow sa bopp lu si nekk ah dëgg la sa dëgg la ko daan yuuxu ala longue yoon di nga xam boo yow li ngeen njëkk def dinaa yeewu damay dem sëlmu ji damay dem jàpp julli ba pare nuyoo ba pare dem commencé def lii ku nekk xam li ngay def kenn du wax sa moroom dara te dañ koy def naa leen délai délai. daa leen délai léegi nag pratiquement ah. bon jànk yi dugg na si kër yi. gars yi tuwaab bi mu noonu n'est-ce lii xale yi bu ñu yewoo ñooy defal seen bopp dem si ci taabal di defal seen bopp ñu xawlal départ noonu dem nañu wàcc yaay sa kaw lal ba ay dem leen yéen a ngi jaag wax ne nga ngeen sax bu ñu yéexee wàcc bu ñu ñàkkatee wàcc mooy loolu daal kon daal daanaka daal yëf yi dafa dem ba mara li nu naan mooy loolu daal vraiment daal pousse baa ngi suñu loxo euh, yi ñu ngi gërëmaat bu baax suñu internet yi ndax ñu ngi am na euh, message bi duñ ko mën a liirandoo mais ñu ngi laaj pour ñu dellu si waat bu baax si définition wu Penda Mbaye ceebu jën hmm. Penda Mbaye wu ceebu jën Penda Mbaye nag waaw Penda Mbaye moomu waxoon nañ ko fi léegi benn géwal la woon nga xamante ni daf bu ndaje yi daan am da daan togg hmm. ñeneen doon nañu togg sax naam mais da daan togg léegi nag ceebu jën bi nag nu mu koy toggee waxoon naa leen fi léegi origine ceeb bi colon yee ko jële woon ci Indonésie indi ko waandar gëstu ba xam ne buñ ko booleeg jën bi mu dem léegi moom ñu ngi koy booleeg yeneen ak yeneen yu bari mais buñ ko daan booleeg jën bi mu dem ñu booleek ak jën bi ak ay composant wam fexe ba togg ci ceebu jën ceebu jën boobu nag Penda Mbay boobu benn magum géwël la woon bu mënoon togg macha allah bu daan togg ceebu jën bi bu xew mësaan am wala ndaje ñëpp dañuy taamu mbanaam bi ku nekk danga naan ci ceebu Penda Mbay bii laay añee. Mm. donc turu Penda Mbay bi foofu la jóge ci ceebu Penda Mbay bii laay añee. Mm. maa ngi xaar Penda Mbay yàq tur donc foofu la jógee macha allah moo war a mooy law tey di law di law tey ba tubaar fa kàlla ceebu jën di yaatu biir Sénégal ceebu jën génn Sénégal ceebu jën. dem na fu nekk ci àddina bi tey. léegi patrimoine la. waaw ndax léegi boo demee France yaa gis restauratrice yi ñu ngi togg ceebu jën. boo demee Canada noonu. boo demee Espagne Allemagne feneen ak feneen noonu léegi nag patrimoine culturel mondiale la bu UNESCO. wallaay comme ni Saint-Louis nekkee patrimoine mondial bu UNESCO ceebu jën tey. Saint-Louis kese moomatu ko Sénégal kese moomatu ko. àddina moo ko moom waaw kay mais Saint-Louis fii la cosaanoo. fii la cosaanoo looloo waral nag <laughs> bi tey. waxtaanee ko. pour xam. Mhm. origine ceebu jën fu mu cosaanoo. Mhm. ak tey ceebu jën fu mu toll ci àddina bi. ceebu jën ndar la cosaanoo. Mhm. fii la fekk baax Penda Mbay bi wax naa leen nu mu ci dikkee. muy law ci biir réew mi. di law ci biir réew mi tubaarkàlla ba kër goo dugg biir Sénégal. ceebu jën la ñuy añee. voilà eh, et puis madame du bëri. muy law ba génn réew mi di law ba dem ci yeneen réew yu nu wër yëpp si àddina bi yëpp ba léegi UNESCO def na ko patrimoine mondial. Euh, gis nga Marème mieux que saa sax jën léegi. mieux que saa sax mieux que saa sax ceebu jën ndar moo ko créé xam nga créé mooy fu dara nekkul nga sos fa. ndar mm. moo sos ceebu jën. ñu jël ko di ko booleeg lujum ji. di si def lii di ka nangam sangam ndar la cosaanoo ndar lañ ko sosee. maanaam ñëw doon la jën yi bu ñu ko booleeg ceeb bii dina li wala li extra ñëw di ko def créé ba fii la ko créé bi ñu ko créé ne peut-être que am na comme ni nga ko waxee màggatum géwél moom ñu daan penn Penda Mbaye moom pratiquement xew bu daan am moo daan dem parce que jusqu'à présent am na fi ndar am na ñoo xam tey boo amee xew da leen di wóor ne leen kaay ñoom ak vraiment mën nañu togg mën nañu lii léegi sax góor ñee ko nangu si jigéen ñi boo xoolee ñu bare dañuy ay ñi leen def boo demee si xewal yi góor ñee ñëppay togg <laughs> mais amoon na si au temps tax ñu si xuus ñu ngi dégg ceebu jën mais xamuñu fu mu juddoo noonu la fii la juddoo ndar fii la gii ndar la mooy li ma la condition yi boobu tubaab yee fi nekkoon tubaab yi fexe ba indi ceeb boobu ceeb amul Sénégal. no amoon na dafa néewoon dafa néewoon Marème. Euh, ceeb waaw na am. xëy waalo non waalo importé rek a amoon. non commencé guñu bay kay waalo nee na ñoom ba ñu tàmbalee bay ceeb. Hmm. man maa ngi woon far bon daaw rek laa ñibbi laa ñëw laa ñëw paal maa ngi woon ma ma ma waaw effectivement foofu boo fa demee dal la naan ñoom depuis avant colon yi ñoom dañ daan bay ceeb bi ñoom dañ ko xam dañ daan bay ceeb bi bu ko daan béy bay duna lay doon c'est comme boo demee si àll bi rek boo demee ay oh. yenn dëkk yi dañ li bay béy bi dañuy béy seen dugub ba pare boo demee séeréer si ay côté euh, Bambey séeréer li ñuy bay si dugub dan koy béy def ko si grenier moom la ñuy lekk toute l'année waalo gi noonu lañ daan def seulement nag gars yi tubaab yi bu ñëwee danaa boo produit local baaxul léegi nag il faut ñu wuti produit bi nga xam ne see industrialisé si lañ daan dem ay ñu naan ay ceebu Pakistan ay ceebu Siam ay ceebu ay ay ceeb yi pratiquement Inde lañ koy di ko indi di ko indi importe muy ñu ñu ko imposé mais bu mu demee ba pratiquement barrage bi ñoo écossi la ñoo taxaw gars yi ñoo tamit gëm seen bopp daal di ñëw lawal ceeb bi ba actuellement ñu ngi la autosuffisance en riz ñu ngi koy au Sénégal donc loolu la beneen bi mooy gànjur gi fa la nga daan dina ko daan béy bu safee ba tey bu daan ñëw marché bi da daan approvisionné comme tey ni mu daan demee nii noonu la daan demee Gandiol Gandiol daal indi si marché bi taawee marché marché marché marché ndasu ndar la ak marché ten jigéen si croix bu daan ñëw pratiquement fa la daan wàcc jéeg yëpp fa lañ daan rangoon fa lañ daan fa lañ daan duggee ji soo ñëwee wut sa ay lujum yi fare wut sa ay am jën jën gi gaale wàcc na nga dem yóbbi kon donc dañ ko dem ba perpétré ko Penda Mbaye moo ko ñëw def ko ba dem ba pratiquement dem ba xam rek après lu mu demee wàcc na fi ay kii et consort mais Penda Mbaye moo daan daal droit d'auteur bi pratiquement moom yelloo daal donc ceebu jën moo ko njëkk ndax bu daal ceebu jën Penda Mbaye ceebu jën Penda Mbaye Penda Mbaye boo ko daan régal bu ko daan togg nag foo ko daan togg fu nekkoo wala zéro faute zéro faute rafet ba mar di taal saf rafet et cetera et consa te booba xam nga rek moom mooy détail yi ñuy def si ceeb bi tey pratiquement daaw si am ñoom xoolal ceeb kese lay doon jën bu bees sax xoola xoolal ah, soo lekkee mat sa baaraam xam nga ceeb rënd da jën bu bees tàq bu ma ko jëlee toggee ko ceeb nga jël jënu congelé togg. yamuñu sax yamuñu sax. guuba du bokk ceebu jën dafa am yoon wu muy jaar. Mhm. am légume temps yooyu tubaar fa kàll légumes yu frais moo amoon engrais bi bëriwul woon jën yu bees tàq. boo daan taalal boo daan taal ba ñulub bu cin la bëxee rek déggoo ñu naan. fépp la su naree neex su bëxee xeeñ. parce que bu bëxee day xeeñ. day génn kër gi neex. parce que boobu engrais bi bëriwul woon léegi da ngay togg ba yàq kenn du sentir li ngay. ndax engrais bu bëri. ak pëndëx yi xamatuñu la la ñam yi ak pëndëx yi macha allah <laughs> waaye ceebu jën daal tey moom ah. bi yëpp a ko moom. foo dem ci addina boo bëggee ñu toggal la ceebu jën boo ko laajtee ñu présenté la plat bi macha allah. te mu soqi ko nag fii ci ndar. ndar gi wallaay ah, macha allah te ñu koy jéem ak ñu ko mën sa boral ba tey boo demee dugub bi <laughs> Sénégal gii tey ah man dama dem ma dem naa Thiès mais soo fa demee seen cëb dañuy dañuy dañuy comment dañuy rusi jën yi quoi <laughs> ma ne meemal waaw mais nu mu demee jën ñu ma noo fii boo ko rusul day nangal te taal ndar gis ma fenn foo xam au moins vraiment dañuy ñoom jën dañuy tëmbal diig ak jën noo mën a mel daan ko togg ba yàkkatoo tas tant que ñeen neen boo ko boo ko saaful alors jën bi day tas alors jën bi day albiré et cetera et cetera or ndar mën la ñun ñu xamuñu ko quoi donc am na loo xam ba tey pratiquement ñu ngi ko téye suñu ba tey kaa même gars yi li ñu amagu fi daal si ceebu daal roy dàq daal vraiment amagu suñu ceebu jëm bi quoi xamul ah. saaf jën wallaay saaf jën daal ñu ngi ko xam ci fiiriir bu hmm. weesoo fiiriir moom jën bu dee ceeb rek doo ko saaf day te doomu ndar piir <laughs> tefes ga lay dem ca booru boo fa demee gaal gu teer gendar yi bala ñuy jaay kenn dindi rëndu bu baax teg ba noppi rëndu boobu nag moo yor ceeb bi. Mhm. jën yu bees tàq jën yu baax nga togg ko togg bu baax ah Penda Mbaye noonu la ko doon doxalee. est-ce que noonu la ko doon doxalee ndar nag xamuñu saafu jën. Mhm. saaf daal fiiriir lañ ca xam. Ah, waaw fiiriir lañ ca xam sa ay farsi wala yooyu nga saaf. mais ceeb moom tëmbal daal lañ ca xam. diigal kay diigal rek def suñu yoon. ñu fàttali suñu mbokku te yéen a ngi topp si euh, Banlieue FM seen émission Ndar démb tey ñu indiloon vraiment tey benn spécialité Saint-Louis mooy ceebu jën ceebu jën nag lu ko booleeg Ndar. lu tax mu ci saan noonu ndar ak lu ko fi téye ba tey ba tey ceebu jën def na ko mu nekk patrimoine international patrimoine mondial UNESCO tey boo demee Sénégal bu ndeex Sénégal palaaw Sénégal yi ceebu jën dañ ko boole du lépp nag waaye palaaw yi moom tey bu nee Sénégal ceebu jën lay te ceebu jën boobu ndar gii la cosaanoo ndar gii la fekke ki ko njëkkoon def comme ni ko mën a waxee léegi muy euh, muy muy penn mbay di màgg sab gël mi xam moo daan moo daan togg si kii si xew-xew yi di fàttali sunu mbokk 2 parce que soxla na vraiment xalaat mag ñi ñu ñuy wax lu tuuti vraiment ñoom tamit vraiment ceebu jën nu mu jotee nu ko daan gisee ak lu si manqué tey est-ce boobu moo fi nekk ba tey ak leneen lu si gars yi boole tey lu tax bokk si ndax ceeb ba mi ngi fi ba tey est-ce ceebu jën mi ngi doon ndar ndar ba tey wala est-ce ceebu jën toxu na parce que des fois gars nga def ne ah, ceebu jën ndar am noo xam ne gars yi xaw a dii nga tuuti naan donc vraiment mun ngeen woo si 33 961 61 02 la vraiment pour pratiquement apporter nu parce que ni ma koy waxee rek néew nañu lool lool lool lool tuuti nañ lool si apporter vraiment l' essentiel de ñun maanaam li ëmb lépp lépp lépp ñun néew nañ si waxtu ñun ñu gën a xam nga toog du ñu déglu kon ñoom day rafet ñoom des fois ñun sabak xëy na peut-être que yéene leen lu baax rek moo tax ñu jël micro bi di si wax waaye ñi gën a xam ñu ngi toog donc ñoom day rafet des fois aussi bu ñu dugg see ñëw 33 961 61 02 ñu ñëw toog wax ñu parce que ñun euh, dañuy laajte rek ak di gëstu. Mm-hmm. Euh, suñu àqu xam-xam. Mm-hmm. xamuñu ci dara. parce que démb la ñu wax. fa mu cosaanoo xëy na dañuy laajteeg di kii rek tubaar fakkaal la donc ku ci am sa contribution wala sa commentaire. Mm-hmm. rek mën nga ko jàllee ndax loolu it day yokk rek xam-xam bi. day tax rek aussi nit ñi gën a xam nu mu demee macha allah. Uh-huh. donc uh-huh. mbir yi noonu rek la war a demee. te noonu lay demee incha allah. waaw yi ñoom ñu réagir bu baax ñu. internet yi ñoom dafa ñu ngi réagir bu baax macha allah <laughs> ñu ngi réagir bu baax auditeurs incha allah te ñu ngi gis seen i commentaire bu baax di leen mm-hmm. jaajëfal bu baax nañu gën a abonné wu rek mm-hmm. te gën a partagé bu baax mm-hmm. ndax euh, banlieue TV ñëpp la fi nekkal la télévision à votre portée comme ni ko gars waxe euh, donc tey moom ceebu jën Penda Mbaye la ñuy waxtaanee devenu un plat international patrimoine mondial wallaay voilà comme ni Saint-Louis nekkee patrimoine mm-hmm. mondial. Mm-hmm. UNESCO. Mm-hmm. amuñu droit changer fi benn bâtiment. même booy tabaxaat. ville be dangay ngay seet même architecture nga def ko. suñu ceebu jën bi it buñ ko changé. sagam nekk na tey plat international. patrimoine mondial la tey nañu ko defee rek nañu ko daan defee naka pend mbay daan defee. Hmm. nañu ko continuer defee noonu rek. buñ ci indi benn rénovation. <laughs> wala di indi yeneen technique ci biir di di di modifier daal ceebu jën bi macha allah. maanaam loolu sax mënatul nekk léegi léegi li ñu naan codifié léegi na ba nga xam ni ba keroog fii suñu ay sëtaat sët di ñëw. ceebu jël dañu ne ceebu jël dàkkoon na nii lañ koy defee xam na engrais si woon lépp xam na ko kon kenn mënul def leneen lu dul boo nee ceebu jën leneen loo indi naan loolu du ceebu lii ceebu ceebu jën bii moo ceebu jën donc codifié na actuellement kon dañu sant yàlla te vraiment loolu aussi moom la nan naan ndamal ndar la daal ndamul Sénégal ndamul Sénégal la sett gaa waaye ndamal ndar la ndamal ndar la ndar gii la cosaanoo voilà donc fii la cosaanoo ndamal saint la voilà ndamal Sénégal léegi wër na àddina mhm. ceebu jën nag ni ñu koy toggee moom ku nekk am nga sa façon mhm. waaye jën bu bees jën wu baax da ci am solo waaye boo jëlee jën mu sonn wala yenn jën yoo xam ne boo ko tëmbalee mu tas mu des yax kese yooyu tax ceeb taxu koo jóg ceeb dafa am jën bu ko tax a jóg mm-hmm. ak légumes yu frais mm-hmm. nga doog a dugg nag ca toggeen ba mm-hmm. macha allah kon nag ceebu jën Penda Mbaye le plat de Saint-Louis origine de Saint-Louis est devenu un plat international patrimoine mondial de l'UNESCO. moo taxoon tey ñu doon ko waxtaanee bu baax a baax. waaye macha allah tey ceeb bari na fi. ndax tey boo demee ci delta bii liñ fi bay si ceeb tubaarkàlla Saint-Louis kese mënu ko dundee ñu ngi koy importer di ko génnee. ñu ngi bay bu baax ceeb bi ñu ngi bay bu baax légume bi ñu ngi koy sante yàlla te war ci gën a góor góorlu nag ndax nit amuloo lu dul li nga moom te ñun lii lañu moom. Mhm. bay dundee la woon booba ndax booba xëy na commercialisation bëriwul woon Euh, yooyu yëpp kiiwul woon nit ñi da daan bay rek talloo dundee. ren ba dëwën mhm. waaye tey macha allah euh, yokkute lan doon ñaan yokkute am na yàlla jëm kanam. Mhm, amiin bay bay exporté di ko yóbbu bitim réew ak fu mhm, nekk. ñëpp xaj si euh, macha allah loolu daal lu am solo la te dañuy ñaan yàlla mu gën a yokku. waaw Marème comme ni ko waxee rek noonu la daanaka presque te am na loo xam ne benn aspect bi nga aussi presque. ceebu jën bi tey dafa mel ni am na ñoo xam ñu ngi koy bëgg comme ñu koy importé dama am dama dafa am fu ma mosoon dem jour dem mais daanaka dan ma ni togg ma loo xam daa xaw ma lan daal ñu bëgg ceebu jën daa boole ko ni xaw ma c'est bon xaw ma c'est c'est c'est xaw ma nu ko tuddee c'est <laughs> waaw bu kooku yàggul bu mu génnee. plat à base de ceeb. bëri na ceebu jën la ceebu jën xam nga li wax boobu. Mm. ceebu jën la boo xam ni dan sa doole xaw ma soos ceeb bu weex la daal. moom ceeb bu weex la def naan sa soos def sa bëgëj ba pën ni ko c'est boo waaye kon kay man dama lu tax ñu ko tuddee c'est bon nan ni ceebu jën améliorer ñu ko tuddee leneen. ceebu jën compliqué ah parce que. parce que ñoom dootul ceebu jën. Ah. moo tax ma ne la suñu ceebu jën bi comme c'est devenu patrimoine mondial. Ah. bu ñu ko changé bu ñu ko modifié. Hmm. ceeb nag bëri na te wuute. waaye li naa roof yàqu jën parce que ci ëpp à base de ceeb la. Hmm. boo jëlee ñaari cin yi maafe yaasa c'est bon. kaldu yeneen ak yeneen yëpp à base de ceeb la mais taxul mu nekk ceebu jën mhm. jën ngi ci biir mais taxul mu nekk ceebu jën ceebu jën Penda Mbaye la ñu wax mooy ceebu jën bi ànd ak jën wu baax ak légumes yu frais yi soit nga tamaate ko ba mu xonq baa nga def ko bu weex bu la ci neex mais ceeb ak jën la wax ah. bokkul nag ak yeneen plat yoo xam ne à base de ceeb la te du ceebu jën parce que bon boobu nga wax le plat existe c'est bon la tudd waaye du ceebu jën. non man dama gàññoon ma lii moom boobu day am fruit de mer. am yeneen ak yeneen am jën am bëggaj am suul et tout ça. voilà bon mais mais nag du ceebu jën. pourtant boo génne boo génne lépp nekk ceebu jën dama dem man ah. dama leen dama leen génne <laughs> lépp boo ko tegee. ceebu jën am na lu jëm am na yu nekk si ceebu jën te newu ci. comme moom am na yecca ne te newul si ceebu jën. ah moo tax ma la nag ceebu jën bi. Ah. kenn du ko changé. ok na mu meloon rek lay mel. ah bon kon mbokk ceebu jën li ko composé. ak li ah. composé pas la même chose. ceebu jën li ko composé mooy nga am sa coof bu baax mbaa nga am sa kibaaru bu baax nga am sa géeju bër bu baax nga am sa bisaab bu tooy am sa gisaab bu wow. Hmm. nga am sa ñambi am sa suppame am sa xuliñe am sa pata sa sa carotte. nga am sa daqaar bu bees tàq nag ah, am sa tomate daal de nag composé sa ceebu jën. boo yeggee suur na comme waxee. boo yeggee am na wala Youssou Ndour bi. <laughs> Ah, ba voilà. <laughs> am ah, na Youssou Ndour fi muy waaye ceebu ndar bay dugg si togg ba ak yëkk ba donc composant wu ceebu jën. ak hmm. composant wu yeneen plat yi bokkul. yeneen plat yi dina am ceeb dina am jën mais du doon ceebu jën tax ko nekk ceebu jën hmm. waaw. loolu waaw waaw mais waaw mais Marème Marème est ceebu jën boobu ba tey est ce que ce que ceebu jën mu ngi ceebu jën ba tey. Ah, ceebu jën mu ngi fi ah. ceeb nag dafa am. waaw ceebantu am. xëy na jamono ni demee waaye ceebu jën fa mu newoon jógu fa. Hmm. ceebu jën fa mu newoon jógu fa boo demee ci denc gën gii mbaa nga jéggil jéggil ma pom bul sax jàdd fenn jéggil ma pom bi rek dem gendal langue de barbarie bi rek dugg fa. buñ la ceebalee di nga xam ne ceebu jën Penda Mbay am na ba tey waaw waaw mais ceebant nag dafa am du ñàkk ndax jamono naqadi li ma la doon wax jën ya woon démb amatul tey wala nga xam ne bu amee yi c'est pas accessible yombul euh, waaw waaw mais mais est-ce que ma rek aussi ceebu jën yaakaar comme ni nga ko codifié léegi nii hmm. ceebu jën jën bi am na yenn jën yi nga xam ne duñu bokk kàddir mën am dégg naa benn meloon ne ma am na jën yi xam ne ñu ngi leen togg jël bu la neex ji boole jën loolu neex jël togg lépp jël dana koy lekk gaa am na jën yi nga xam ne mun ma duñu bokk kàddir soo ko defee day xamul lan sa lan sa bëgg doo too ko sa amati. te waaw ñu ni am na jën yi nga xam ni ah alors ñoom kott kese képp képp duñu dugg si kàddir am na beneen jën bu nu war a àndal est-ce que culture boobu laa bëgg wax ni est-ce que loolu tey. xale yi xam nañ ko quoi jën yi war a ànd boo nee safal ñu ne yaabooy rek la ñuy safal yaabooy mu dee safal ceeb rek te pourtant yaabooy il par am na jën yi nga xam ne warul ànd ak moom si ceeb dafay yàq sa ceeb du génnee sa xaw ma lan ba xaw ma kii sa lii am na combinaison yi nga xam ne daal bu ko defee sa ceeb dootul penn mbay. du moom dootul penn mbay. waaw xam nga yaabooy. waaw yàggul bi ñu ko commencé lekk. Hmm? moo ne bu ñu ko daan dañu koy. denc laalee xaw ma nu ñu koy dem dañ koy jeex ah. na mbaa nga keccax ka ndax moom loolu ceeb tax koo wul jóg ni ma la waxee nag xëy na jamono naqadi na tey ba nga xamante ni jën yenn jën yu mag yi jot ci yombul. Mm-hmm. waaye jën wu mag moo yore ceeb boo demee bay safar sax wala kii te yooyu sax léegi la xew nga doole ci benn yàggu waaye man pour te dire que man damay togg ceeb. ba yekk du ma ci def yekk naa am sama jën bu bees tàq bu frais am samay légumes yi frais am ya cay ànd yëpp ma toggal la Penda Mbaye tegal di leen koy xamal waaw <laughs> bu ni fàcc Penda du ca dugg leneen du ca dugg ndax loo gis na composant ba daf ca am solo ndax boo jëlee tey euh, am na jën yu ñuy wax seen lañ ci ca du dex la waaw nga bëgg ka toggee ceeb doo am Penda mbaa nga jël sellañ ci boobu booleeg yaa booy booleeg coof bëgg ka togg ceeb guuba day changé mhm. na ngay nangay ngay na ngay dafa war a aw yoon pour nga mën a am ceeb bu baax mhm. moo tax man na ceeb dafa am ceebantu am kay ceeb am na ceebantu am mais loolu waaye Penda mbay moom jógul ndar mu ngi fi ba tey bu ko weddi laaj ñu fii ñu am na ñoo xam ne loolu jaral na leen voyage di ba Saint-Louis gi pour lekk tenn ma baa boo demee Dakar ngay wër restaurant Saint-Louisien yi nag wallaay wallaay wallaay wallaay mais daal loolu daal ma ragal naan xal yi parce que gars bu ñu demee jënd daal dañu xool ba gën a yomb rek ñu jënd xool ndox jën bii war na parce que am na jën yoo xam ne kenn du leen ceeb dañ naan kii jënu ceeb la bii ñu naan jënu jënu firi la bii dañ naan jënu ñaari cin la maafe wala su dapaam waa wala supp kaani wala suluxu bii jënu nangam sax et cetera à la longue mais le culture connaissance jën boobu. culture connaissance jën est-ce que commencé wu dina xam na jënu ceeb dafa am mais est-ce que xale yi tey actuellement génération bi. xam na géeju ceeb dafa am. Hmm. bi de géej ba ba. da nga koy mooy bi ñuy takk ak bisaab bi géej waaw géej ah. da nga koy takk ak bisaab ah. mais géej boobu da nga koy sélectionné du n'importe quel géej rek ngay jël ah. boo déggee ñu naan la damay saaf bala muy tas parce que du boobu moo ca war a dem hmm. ba ca war a dem bu ca demee du tas hmm. ak kañ la ca war a dem ak kañ la ca war a dem ak kañ la ca war a dem ndax boo jëlee euh, la ca la ca war a dem nga teel ko dugal wala nga defee ko noo xam ne du noonu ñu lu këral ba a yokk sa gaz nag muy guj guji rek jëmale suba tas dana fa yomb loo gis ci temps nga koy teg da koy sélectionné ba pare teg ko ci temps ndax cuisson dafa am durée hmm. lu ëpp yàqu. xam naa daal monsieur def benn concours ceebu jën moo ko auditeur yëpp waa Pikine ñu vraiment ku ko tàgg te dafa concours ceebu jën ku nekk togg ceebu jën soo demee taggal leen coupe boo xam ni pratiquement xanaa dafa naan waaye nag xanaa ba dina dellu waaye gars yi duñu ko jël xale yi ma gis. Ah, ah, ah, ah xale yi ah jéegu ndaw ji. ah jéegu ndaw ah, di ma dem ceeb de ah xale du yokku de joxe li ci war lépp du ceebal la ceeb bu di faaj de am na ñoo xam bu ñëwee daa nga ne ah ceeb ah ah ceeb ndugg de bu riche eh. yekk ba war a kii nag ndax ceeb boo ko toggee macha allah na mu na mu na mu war a na mu hmm. war a toggoo hmm. ba nga yekk ka dafa am it façon présentation hmm. te loolu defe naa ni riir na ci xale yu bëri ndax eh, ci jànq ñi rek nga koy xamee da ngay may jànq mais am na ñoo xam ne dañ naan mbàcc rek sànni est-ce que xam nga yàq ràcc dafa am solo ci togg hmm. parce que li ñu mag ñi doon wax ñam mooy lekk lu bopp hmm. soo toggee sa ceebu jën bu ni faaj def ci lu ne hmm. te xamoo noo ko yàqee amaana nit ñi duñu sawar ci lekk mais boo toggee ba mu mel na mu war a mel nga yekk ci sa bool yekk gu rafet ba nga xam ne boo yëkkatee kubéer gi rek ku nekk sa gémmiñ di di kii tàkkamtiku te ñamagoo <laughs> ah kooku moom defe naa ni <laughs> macha ah. allah loo gis rek daal dafa am nu ñu koy doxalee ca njëlbeen ba ci finalité ba. ca njëlbeen ba da ngay sélectionné def ko na ko war a defee te loo gis dafa am durée dafa am temps. Mm. soo paree it dafa am présentation donc loolu lu ci am solo la. Mm. yaa ngi yor portable bi heure bi dafa xaw a loolu. wala loolu des na des na gaa des na gaa mën nañu xuusaan ba sa kanam mën nañu xuusaan ba sa kanam mais vraiment man man mm. si si taxawaayu xale yi ndaxte ndar démb bokkul na si bokkul na si ëmbal ndar démb émission bi n'est-ce pas ñu delloo si déq li nga xam ne mi ngi doon waaj a réer ñu tegaat ka xale yi xamaat la fa xewoon démb ndar démb bokk na si ëmbaam bokk na si objectif am vraiment li nga xam ni daanaka commencé na fi loof commencé na fi ñàkk waxuma ñàkk sol commencé na fi réer ñu génnewaat ka xale yi xam mooy lan mun si jàngat nest pas waaye est-ce que loolu pratiquement bu ñu xool comme ni nga ko ceebu jën nii tey léegi nii bu ñu ko waxee rek pratiquement ceeb bi jën luy ceebu jën critère ceebu jën moo tax ma ni maa ngi toog il naat bu nu waxoon tey dañuy togg ceebu jën tegal leen coupe ragal naan coupe bi dina delluwaat waaye du bari ñu koy loolu wax bu ko bu dee dina am mag lay doon waaye xale tey man ma ne wóolu ma leen wóolu ma leen si dara si ceeb. wóolu ma leen si ceeb nest que xal yi li ma gën a métti mooy dañuy ñëw naan ceeb loolu boo ñëwee looy yar am nga ceebu am looy looy yar mu la ceeb waal i utal ma lan parfumé importé bi est-ce que parfumé boobu dana bëgg delloo cosaan ak sunu ceebu wàll bii boo ko dee ceebu parfumé maanaam importé bi ak sunu ceebu wàll bii moog sunu jën yi ma dem nga yaakaar ban moo si war a mën a wuyoo Penda Mbaye ceeb bu waalo bi wala bu si war a mën a wuyoo Penda Mbaye man mii sama wàllu bopp moom ah ceeb bi ñu béyee sama réew rek laay lekk parce que consommé local consommé local loolu la réew te moo war ndax xam nga réew mu soqaliku rek sa la ngay bay moo la soqali mm-hmm. wala ca la ngay liggéey ndax consommer local mu ngi ci mbay mi mu ngi ci yére yi mu ngi ci dàll yi mu ngi ci lépp mm-hmm. consommons local li ñu moom nanu gëm suñu bopp te defar ko ba mu baax parce que ba mu fiy jëkkee ñëw nee naa la ceeb bi ba bañ ko jëkkee xam booba xëy na melul woon ni mais ni ñu ko defee def ko def ko def ko ba mu baax mais ñun li ñu am buñ ko ñàkkal fulla mm-hmm. nañu ko téye liggéey ko ba mu baax ceeb boo fi togg mu neex amaana ceebu importé yi la nga cay def sax mhm. boo doon togg ceeb bi ñu bayee fii ci réew mi doo ci daj coono bu mel noonu donc consommons local loolu moom lu ci am solo la te xale yi léegi tubaarkàlla seen togg naam am na ñu mën a togg mais xam nga loo gis ci àddina dafa am noo koy doxalee lépp looy def gëm ci sa bopp amal amour ci li ngay def man dama naan toggkat il faut mu am amuur ci li muy togg pour mu neex ak loo mun ci togg nag da ngay bëgg li ngay togg li ngay def da nga koy bëgg ci sa xol nga def ko ngir mu baax ngir am ci réussite mais na fi jóg dama sonn naa ko defar pare ci kooku mënoo mos a ko waane ba mu neex. loolu loolu déet ak préparation am na ñuy wax lu ñuy duggee waañ boo leen xoolee si noonu bu ñu yekkee doo leen. moo mooy na fi jóg rek mooy na fi nañu duggewaal mooy la fi jóg seen seen bu xotteeg seen tiseen bu xapp tukku booy xol mbaxal dul sax sol loolu jël la yooyu vraiment daal baaxul nit looy def na nga ko bëgg wax lu yàlla na nga ko bëgg ci sa xol di waaj dugg waaj dem dugg suba ba set wecc sol sa benn affaire ñëw naan day waaj gi nga damay taal añ loolu defe naa raar na suum bi sax boo koy toog boo amul amuur ba ceeb ba dana seey mbaa mu mel ne neen wallaay wallaay te nit surtout togg waaj man gisuma sagar yuy dugg ci waañ hmm. non man loolu bokkul ci sama gëm gëm ndax waañ lañu fay def sama yaay yaaya doon wax naan biir du ndab bu ñuy raxas hmm. loo cay dugal dafa war a set hmm. donc kuy defar lu set yow dangaa war a set boo setee la ngay def set parce que euh, ni ni nga ni nga mel ci sa yaram noonu nga war a mel ci lépp waaye bu may génn sañse su may togg sol comme li nga wax léegi non non man loolu je ne suis pas d' accord. catum ganaar catum ganaar non non non. catum ganaar loolu moom yoru ko. ndax loolu ku la fekk sa waañ ba sax du am appétit. day coupé appétit. wallaay dëgg la. waaw ndax démb. Mhm. dañ daan sañse ba jekk. Mhm. teel a dem marché. Mhm. boo teelee dem marché ñëw teel a taal. midi keng bool keng boo sóoree bu otoraay bi nee pép ci pont lebar bi fekk na nga sóor ba jeex nga dem sangu ndax xetu taalaale bi. jën yi nga doon laal mhm. nga dem sangu ba set wecc changé nag solaat yeneen yére hmm. di préparé yàq ga boo sañ see sol sa yére yu rafet nga ñëw bala ngaa yàq dafa am lu ma remarqué léegi ci xale yi hmm. dañuy ñëw rek ni ko mbàcc ràcc ba du rafet présentation ba du baax ñun ban daan sóor ba jéqi benn jéqi dem sangu ba set dañuy jëkk lal booba ceeb ba ñoragul de mhm. dangay lal sa nàpp bu rafet indi say torchon yi rafet teg wut sa maxsal teg. bu amee maxsal mooy raxasukaay. ah ok d'accord bool la récipient la bu am ah. sa tàllaam ci kaw. am na en inox ok maxris waaw mais l'ensemble mooy maxsal maxrëj bi moom satal la la xam nga c'est bourtalien parce que fële la jóge uh-huh. loolu tax noo yi mel noonu uh-huh. nga daal di teg sa maxsal teg say torchon fompukaay mm-hmm. wuti sa ndoxum naan teg xam nga raxasu ñëw na ndoxum naan ñëw na lal nga nàpp teg say torchon teg sa quelque kudd nag ndax ñi bëgg lekkee kudd mm-hmm. nga doog a nag dem seeti sa sóor ba fa mu toll xam nga loolu day joxe appétit mm-hmm. ci kaw nag lépp set mm-hmm. loolu day joxe appétit soo ñëwee nag fekk mu commencé ñor nga jéqi sa deuxième jéqi toog cinq minutes nga yekk fekk ceeb ba ñor ba tegu si yoon nga ràcc ko sa ràcc bu rafet nga taaj ku xiiful woon dana lekk est-ce que waaye mais ñaar Marème laa bëggoon ñëw si ñaar mbir maanaam baaral baaral baaral luy baaral ak pourquoi ñuy baaral ceeb ensuite ak xooñ ak xooñ xooñ dëgg naa ñetti façon xooñ am quoi lu mu ko demoon noonu xooñ ji ak baaral Marème daal dellu si tuur si ceeb ceeb baaral da ci am solo ah. ceebu tipp dafa am moo tax ma ne la ceeb dafa am ceebantu am. Uh-huh. lépp xajul nag tey ci émission bi. ndax ceeb boo taalalee ba noppi da ngay baaral. Uh-huh. xam nga tipp mooy ne xale yi def léegi rusi léegi yekk léegi yokk gaz. ba mu ah, sës mooy tipp ok waaw mooy tipp dafa am. ceebu baaral am uh-huh. ceebu baaral nag bis boo ko ñamee dootoo lekk ceebu tépp waa dafa mel na nag euh, waxtu yu xoj noonu touche sa waxtu yu xoj nañu waxtu <laughs> lii du fi yëpp xajul si cin wi ceebu jën mën nañ ci wax fii ba suba euh, wax nañu origine am hmm. wax Penda Mbaye biñ ko dakkantalee fu mu hmm. jóge hmm. wax ni léegi patrimoine mondial de l'UNESCO la dugg itamit tuuti ci ni ñu koy toggee ak présentation bi ndax loolu lu ci am solo la parce que lu ci bëri léegi daf fi jógee xale yi taf taf la ñuy def jóge fi da ngay gis ku yekk rek taaj lal nàppam taaj raxasu ñëwul. Mhm. ndoxum naan ñëwul leneen ñëwul lépp loo gis nag dafa am na ñu koy sélectionné am na ñu koy présenté. Mhm. ngir mu mhm. mën a aboutir fu baax. rawatina nag lekk ndax lekk soo ko sélectionné noonu présenté ko noonu macha allah. ku ko téem am appétit. ndax ñam mooy lekk lu boppam. sant nag di gërëm. Uh-huh. téléspectateurs yëpp. Uh-huh. internet yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci émission bi tey. di ñaan yàlla mu may nu rek fekkewaat beneen altine incha allah. ma jox la yow tamit nga tàggook auditeurs yi. ndax technicien bi mu ngi may def signe sànq ba léegi ni heure jot na. waxtu jot rek wax di xoj nañu kay vraiment di wax rek ni li nga wax rek la li duuf lépp xaju si ndab bi. te ragal naa sax xanaa koo gënal daw laa koy bàyyi sa alpha si moom tamit wax na si bind na si teg wax na si lu réy si ceebu jën. pé bu jën pen mbay bii wax na su bari te du ñàkk bis yi ñëw aussi daan ko mën a décroché am ko indi ko vraiment fii aussi moom tamit ku yaa la ko macha allah Alpha Cissé jàngal na ma donc vraiment je crois mu aussi xam naa gannaaw bi na ko jéemal démarché décroché indi ko fii vraiment ñu tim ko mu gën nu wax vraiment si ceebu jën bi quoi ah comme ni nga di gërëm vraiment auditeurs yëpp di wax ne vraiment suñu mbégte yëpp su moo moo ñuy sawaral te moo ñu fi tëj ba tey daal ah di gërëm xanaa di ñaanal vraiment borom kër gi daaw Daouda yàlla lafal ko seytaan vraiment yàlla wàccal ko xéewal gi sawaan baawaan at mii vraiment doon atam émergence am boo xam du émergence waaye atam envolam boo xam ne vraiment fi mu bëgg yóbbu vraiment ndar vraiment mu egg fa ndaxte moom fekk na démb fekk na bokk na si tey donc xam na nu mu demee tey c'est ay pionniers la yoo xam ne presque ay école lañu yoo xam ne daanaka tey ñoom ñi ngi béy seen wàllu seen si waar bu baax baax kon yàlla na ko yàlla doole yàlla na yàlla ji ko am ren amin amin waaye jërëjëf Loum mhm. kon à lundi prochain incha allah incha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp sincérité ak maandu ci wàllu gu ne moom nga ma xame dignité gu ànd ak dal jamono ju ne lañ ma sa doxal te di ko jëfe si sunu diggante